mooy fës na ni nguur gi ñàkk na élection locale yi loolu dama bëgg sénégalais yépp xam ko parce que dañoo def ñoom campagne ak wax ju bëri ñaare nag élection buñ ci génnee ki ñàkk mooy ëpp li wax ñu génn ci élection locale rawatina nguur gi yor Nek ci télé yi nekk ci rajo yi naan dañuy génn ay chiffres ak ay tableau chiffres yi ñu présenté ko publier ko du dindi lu toll ni tarfataay ci koo xam ne nag nee nga ñetti at ci gannaaw yow amoon nga 58 ba ñu ask est-ce que sa 30 pour mat na wala matut loolu defet musu mënu ko kon nguur gi na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 Coupe d'Afrique moment fort le temps fort là pour la jeunesse de ce pays waaye Macky Sall la Coupe d'Afrique Le peuple sénégalais gagné la Coupe d'Afrique bu ko ko kenn askanale moi le président de la république dinañ ko ne félicitations. waaye kenn ku nekk ci ñun war nañ ko wax félicitation parce que kenn ku nekk supporter nga ñaan nga encouragé nga ñaq nga ci kanamu télé bi wa footballeur yi nag waxuma seen affaire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

kuñu respecter respecté ñu respecté la kuñu ñu respecté wul nag ñu xam ni ñuy ak yow ma daaneel ci ñetteel bi mooy kaawu Khalifa Sall da wax na ko duma ci sori dafa am loo xam ne na ci réew mi Macky Sall en complicité ak justice am ndax koo xam ne bañ koy condamné prononcé ñu déchéance civique électorale parce que pour nit ñu ne mënatul vote mënatul nekk candidat il faut que bagn koy condamner juge bi prononcer lolu lolu amul casier judiciaire vierge amana sax mi ngi ci liste électorale yi nga ne koku tay du nek candidat ñun nang woon ko ba romb ba bàyyi élection présidentielle romb ñu ñëwaat sàggan seetaan donte fas yéenewul woon nek candidat ci élection locale ba élection locale yi passé ñu ne nag duñ ko continuer seetaan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 association privée le corporatiste justice l'institution de la justice dinañ tontu bu may que conseil constitutionnel yagna naa réuni djel ay justice ñu dem tok fait nga jox leen xaliss bu dul opposition wax nga ne su incompétent lu wax nga signé ni suñu respecter ñoom institution judiciaire ñu respecté ko parce que ñi njëkk a jalgati institution judiciaire ci réew mi ñu ngi jóge ci magistrature du ñëpp nag li ëpp ci magistrature magistrat yi macha allah waaye dañ ciy tànn ñenn fexe ba teg leen ci yenn poste yi ñu ne poste yooyu mooy yu gën a fu leen waa joxoon ñu dem foofu am na loo xam ne nag duñ ko nangu ndax nañu xool ndax dinañu invalider suñuy liste am déet